commencé liggéey bi parce que Modou ah, ah. su jógee fii dafa war a delluwaat ci liggéeyam kon nag Modou ñi jëm ci bés bu rëy muy le 5 novembre ah, nga xam ne moo di Eumeu Sène tey waa parcelle namoon la waa génération Xereñ waa Xereñ famille ñëpp amoon bi nga dugg see gis fees del yaakaar ji waa parcelle am ci yow ndax mesuré nga ampleur bés bi importance bés ak bés bi lan la jaral Modou Xereñ Lo yàlla bu baax di lu coono bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal suñu waajur jiitu. SDA bi SDA bi gisoo ak bépp jullit bu ko fekk ak ñi fa fekk. bu ñu nag teew fii te amuñu ku ñu jaale bu suñu benn kilifa bu mag bu demee parcelle d' identité te mu xam mu muy pas ak Dramé ngeen àdduna ci semaine bi. ñu ñaan ñëpp ñu ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana. di ko jaaree unité 10 yëpp parce que kilifa mag la ci passé rawatina unité 10 di nuyu assistance bi bu baax a baax di jégalu gis naa ni yaa ngi ñeen fii lool lool lool lool xam naa da mën a moon mais maa ngi raw fuuf di nuyu encore suñu di nuyu suñu mbokk journaliste bu baax a di nuyu suñu coach yi muy coach Rock Énergie ak coach Jàmbaar di nuyu suñu kilifa yi nekk fii ci làmb di ci jiital ñoom yaara mbay xarit mbay ak ñoom Papa di nuyu suñu rakk mbëri yëpp gis nañ accompagnement yi boobu ba léegi ñu yi am ko yàlla mottali te ñoom it ñu ne seen carrière yëpp yàlla defal leen ci dam di nuyu Moussa Gueye Bambay gis nga woon ko jëloon sànq di nuyu Bambay la ko ñoom su ko bàyyi ñëpp daal. man itam ñu ñëw ci question bi di wax ni ba ñu duggee ci terrain bi waxuñu sax avant ñu ko tuddee parce que avant ñoo yegg géej rek coono yi métti métti lañ teg xam naa ni dañ ko demoon lool lool lool lool mais maa ngi raw te xam naa baax na fi teg am ci mais fu ko raw la am teg parce que xam naa laa ko fi doon dama yokk combat ku nekk ak ni koy entamé des fois dafa ay combat supporter yii am combat ñii am combat mais nii damay wax combat bi sama combat la. parce que am na ko yëg. ba tax na ñu yëg rek rek soo ñu yëgee ñu ngi ñaan yàlla mi ndam incha allah may ñu dem bu set buy le cinq incha allah. ñu bëri. part Yaxya Jóob Yékini pour ñu téye ko lu yàgg problème aller au combat nga dalal xelu gaay yi nga xam ne yow rek la ñu bëgg sopp largement ni yàlla dogal na suñuy supporter xam nañ ñun ñu mel ci entraînement parce que sport la ñu def suñu liggéey ni ma koy waxee chaque fois rek bu bureaucrate yi xëyee dem seen bureau ouvrier yi dem atelier ñun ñooy xëy nekk ci géej wala ci saali tey lamb ñooy suñuy entraînement bu baax ànd jeeg suñuy coach ak mbëru parcelle yëpp ñoo ngi ñëw jàpp ci xam ay xale yu sawar bay ànd ak ñoom dafa am lu lay yokk vraiment ba tax na li ñuy war nekk ñoom ci bu baax a baax a baax encore une fois xam nañ fi ñu làmb ci toll te incha allah dañoo pare pour bàyyi couronne bi suñu pare teg ko fii parcelle tournant mbëru parcelle yi jël ko jërëjëf xam naa ni su ma paree yàlla mi ngi fi Lamine Lutte TV mi ngi fi Modou Anta mi ngi fi ak Djili ñeneen ku ci bëgg a wax rek waaye Modou Xarañ dama bëgg ñu dem nag directement ci question yi mais ku ne xam na ni bés bii bu mag la du bés bu ndaw Modou Lo wax encore une fois rek xam nañu ñu bis bi toll te pare nañu suñuy bopp lépp lu ñu war a pare pare nañ ko am lu ñuy soor ci bopp incha allah day ñaan bis ba rek yàlla may ñu talal fekke ñu dem jëli ndam indi ko parti incha allah. beneen question bi may posé mooy démb dañu gis ne Ama Baldé ci open press bi dañu gis dafa wàññi poids bi dafa wàññi poids bi. ak ci bëri bi waaw li ma waxoon ci cercle bi rek kenn sawro bëral pare képp kuy joxante da nga bëgg pare da nga bëgg bu pare cent pour cent comme ma pare incha yow ah Cissé. salaamaaleykum. ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. ah fu may ñëw rek mooy da nga dugg Pikine. bi rek ne mooy magu Ama muy Eumeu Sène. nga daan ka ñaari yoon. démb Eumeu ñëw na si open presse Ama wax ak moom ni ko fils fayul ma loolu lan nga siy dañoo bëgg a gàllankoor pour lamb. loolu mooy yegg si wul biir géew ba de. dañoo bëgg a gàllankoor pour lamb loolu la. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum waa parcelle bi yëpp. lamb la moo leen di nuyu di leen ziyaara di leen masaw di leen di leen ñaanal yéen ñëpp di sàkk ñaan si yéen. kii am na question yu ma koy posé. dafa am koy ñaar parce man fan laa fi nekkal ay supporter parcelle ñoo ma yónni Moodu xoolal Pikine ak Caaroy bul fàtte ni bañ sosoo ba léegi mbër yàqalu ko fi mot loo beneen bi si des ñoom nee nañ loo mën a taxaw si say taxaw si say tànk parce que premier roi des dem nit dafa ko ko fi na la ko jaral Kébécour jërëjëf Khadim ba du 100 dëkk verte la Modou ñu ngi lay ziar di ziar waa parcelle di ziar képp ku ñuy déglu am question boo xam ne ni posé nañ ko léegi du nga tontu ni que yóbbunte galgal ubbul làmb sa gëm Eumeu moom moo déy Ama Baldé ne ko fils fayul ma yow je pense que Papa Sow war na la wax frère fayul ma Ama euh, Baldé personne la mujj jógee daan fi ki nga xam ne ni moom mooy Papa Sow yéen ñaar ngeen bëree li nga xam ne ni moom mooy mbapat nga daan ko lamb ji ban enjeu la am ci Modou Lo ndaxte gis nañ ni que revanche yi bari na lool. da yàq métier lu nekk métier la te dañuy def làmb métier ba tax na man li may wax am combat taxul may entraîner entraînement dama ko def métier matin midi soir dama ciy def ba tax na incha allah lépp lu ñu baax a baax a def ñu liggéey incha allah le cinq novembre day ñëw ñun partenaires yëpp ñu fekk ko bu soobee yàlla def ci sa bopp na ko gars yi bàyyee ak yéen. tax ma ne combat bi sama combat bopp la xam nga te mooy li may wax rek te damay sant yàlla li may wax ci ubbeenti bi boo amee rek ñu saw boobu ba gis nga ñaari combat bu am parcelle te boobu ba léegi ngi ànd ak ñoom di leen accompagner ba tax na wàccu ñu ci géew day ñëw doon compétir chaque fois parce que ñoo ngi accompagner suñuy rakk ànd ak ñoom di leen encadré nekk ci Modou lamb ji bëri na ay crainte parce que ñu bëri ñu ngi xalaat ni ba ci bésu ji sax am na ñuy wax ne lamb ji mën na yàqu lamb ji mën na am violence lu nekk ñi ngi koy wax les forces de défense et de sécurité ñi ngi sur le qui-vive démb rek mi ngi amoon réunion de sécurité alors li ma ko waxee woon violence ak lu ni mel ban appel ngay lancé pour que lépp am ci jàmm am ci salaam yow ak ki nga xam ne yaay sa adversaire ngeen jàkkaarloo bëre bu ñu tëjee barrière yi lu waay mënal sa morom nga def ko l'appel de Modou Lo en tant que leader. waaw lu ñuy wax chaque fois rek ba pour ñun parcelle ñëpp dañu xam ci civilisation dañuy accompagner suñu mbër. porté ko mu am naan rek moom ñibbi dañuy ñaax waa Pikine di ñaax les amateurs yëpp di leen wax sport lu war a boole la mais pas mu mu tàggale koo nekk sa mbëri yóbbu ko koy jàppale mooy nga ñëw ci lu am nga ànd ak moom ñibbi ba tax na ñu ngi woo waa Pikine bu baax a baax a baax fii Sénégal lu nekk am na fi lam ju nekk am na fi ci jàmm lay mujjee kon dañ ko commencé ci jàmm ñëw si solu ba rafet jour làmb yi ñu ñëw supporter suñu bër yàlla ma ñu dem ñu indi parcelle ndànk ñëw waa bi ndox ndànk dem incha allah di wax ñëpp daal sport ak violence àndul non violence à la jeunesse ñu dem ci làmb ja ci fair play incha allah yàlla ma ñu dem ñëwaat bu yàlla. waaye gars moom guddi na ñu def. dernière question dina ci leneen d'accord alors avant dernière question balaa ñuy jox kenn fële xaaral ma ñëwaat rek ci Modou léegi rek bi ngay introduire doyen Aziz mi koy wax ni ci terrain bi nga bëree ak sa adversaire ci wàllu mbapat nga daan ko Modou Lo bi daanoon avant ci mbapat. Modou Lo bi war a dajeeg Ama ci titre royal lan bi est-ce que le même Modou Lo am na évolution ci beneen Olivier ñu ngi lay nuyu waa Parcelles ñu gis sa dajeel face to face bu mujj yow ak Ama Baldé Ama Baldé xool daan ne bu xamoon ni état bii mu yor doo ko jaral buy ñàkk taw ndax mi ngi diggee loolu distance en tant que Modou Lo mais ba mu ñëwee benn baat la wax couronne force couronne force boobu lan nga koy déggee. waaw Fane sa question ñëwoon na ci sànq am na li nga xam ne waxu mbër mbër mu ne boo jàkkaarloo sa adversaire dañ ko wax lu ko jéem a déstabiliser mais duñu bëre ci lamb yooyu ay waxu mbër baax nañ ko la tontu bi tontu bi la cinq lay doon incha allah Fat boo ko wax dëgg ceeb laa ko déggee ceeb laa ko déggee wax dëgg yàlla xam nga ne seen bi gis naa ay image mais xaw ma sax ma wax vraiment mais yooyu yëpp dañ koy dugal si waxu mbir la rek force loolu amul yàlla may dara fekk incha allah waaw pour ñu yaatu merci. waaw maa ngi dégg li nga wax comme toog naa lu yàgg waaju ci arène bi comme sama adversaire ko defee di wax am na lu fi xewul ci Sénégal ba tax na mbër bari toog nañ temps bu yàgg bëriwuñu ba tax na mooy li ma wax sànq rek loolu ci dara ñooy woon gunge suñuy rakk ñuy compétir ba tax na ñoo woon ci biir làmb temps boobu tooguñu rek nekk ci stade wala ci géej gi mais ñu ngi kontaan ñu ngi def lépp. te su war a national lu mu dis dis suufu parcelle ak suufu Lac Rose noonu la disee suuf si dañ koy dëgg mooy jooy waaye suñu doyen grand Aziz dama bëgg moom it kii benn question moom mooy mooy appel bi bi ngay lancé à l'endroit des supporters nan la ñuy waajalee bés bi ak bu jour ba lan nga leen di dégg waaw li ñuy ci wax wax nañ ko sànq c'est porté comme ni ñu ko xamee ñun waa parcelle c'est porté suñu mbër ñaan yàlla may ñu ndam di ñëwaat incha allah loolu laay dégg waa Pikine ñu ñëw ci discipline c'est porté